je pense que c'est important li nga wax mais yaakaar naa ni sportive nga aussi di nga xaw a seetaan un peu football waaw dinaa ko seetaan waaw ok l'affaire Sadio ne noo ko gisee mu nekk loo xam ni lu doy waar la parce que daanaka fukki fan moo des ci coupe du monde bi blessure am bi euh, tiital nañu bari parce que gannaaw yàlla bokk na ci ñi nga xam ne yaakaaru équipe bu Sénégal la hmm. euh, ban xalaat nga am ci loolu bon déjà rek di ko métitlu di ko ñaanal jàmm ak euh, ñuy ragal yàlla bu mu am parce que au-delà de équipe nationale c'est pour carrière am mais di rassurer wu nag man personnellement parce que quand même je pense que clubam bi nga xam ne moom lay euh, footballeur muy Bayern comme ñoom ñoo ànd ak dal ñun war nañu mën a ànd ak dal mm-hmm. ñu nag pam nga li ma ciy jàngat rek mooy ñun on a beaucoup de chômeurs et que suñu jeunesse bi vraiment euh, c'est une jeunesse perdue parce que boo demee ba nga xam ni xale yi blessure Sadio bi tey tax na ba euh, waxatuñu dara am na ñoo xam ne nañ lekkuñu sax parce que amuñu dara lu ñu wu naa des jeunes liggéey mën nañ ko am sax amuñu espoir non non non ku yóbbu foofu am na ñoo xam am na ci loolu jàpp mais blessure bi aussi mais blessure bi daf leen métti coupe du monde bi moo toll foo xam ne non du rek parce que da nga amul ci loolu nekk ah. football moo toll foo xam ne Sénégalais parce que loolu kese moom la ñu am moment boo xam ne mooy moment de bonheur absolu parce que nag xale yi ay jàmbaar lañu dañuy mouiller le maillot di jox la fierté au Sénégal amul leneen amul leneen amul beneen domaine boo xam ne dina jox Sénégalais yi fierté ak ak communion et dañu war a poser wu des questions. parce que même amul benn rapport ak chômage même akay ah, akay ah, yow boo toogee parce que chômage mooy weesu yow amoo connexion bu doy ba mën a dem de recherches ba xam ne gaañu bi garaawul ni nga ko yaakaaree parce que da ngaa gis rek benn titre rek nga rakkaaju parce que mënoo toog ci connexion bi sax toute la journée ba xam lan moo xew mënoo ko. benn benn titre bu ndaw rek nga am ma ne pour man Sadio va bien surtout que moom ci boppam wax na ko rassuré na Sénégalais ci loolu lay jàpp di encourager itam yeneen jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci équipe nationale parce que une équipe c'est pas une personne ñu wàccee tuuti pression bi tamit ci Sadio. Mhm. et puis pression boobu tam mën na nekk lu négatif mhm. envers les autres joueurs mhm. parce que c'est comme si dire si Sadio ne va pas l'équipe va perdre c'est une équipe c'est l'équipe du Sénégal joueurs yëpp am valeur kenn ku nekk ci ñoom am nga looy apporter ci équipe bi Sadio mën na dem sax ba a jouer toog Sénégal sore maintenant c'est notre Sadio c'est notre fierté c'est notre lion on lui veut que du bien mais il joue pas seul ya y a il y a il est avec d'autres coéquipiers bu euh, baax donc man vraiment gisuma ci lu ma ciy ragal mais xam nga man lan moo tax muy football muy musique mu yenn activités yi euh, ni ma ci meloon sax bi ma gënee nekk ndaw dama ko wàññi dama gis ni ay activité yoo xamante ne dafay teggi dindi nit ñi ci l'essentiel parce que le pays va s'arrêter et Macky Sall va se frotter les mains il content politique nga bëgg ñëpp ñëw def politique waaw dama bëgg nit ñi parce que politique dafa centrale dama bëgg nit ñi bu ñu def dara lu leen ñu tàkkali seen xel ak la réalité. diversion waaw diversion muy musique muy fecc muy muy loo mënti gis. man noonu laa mel si man noonu laa mel ah? parce que dama ni dama ni sénégalais yi dañuy dem ci Qatar bi mais nañu ci dem ak xel ak xalaat nañu xam ne gannaaw Qatar bi scandale yaa ngi fii ba tey mal gouvernance baa ngi fi corruption baa ngi fi 45 milliards dañu war a àtte baa ngi fi injustice ñu tëj ci kaso baa ngi fi dëkk bu metti baa ngi fi parce que ñun nag ñoo mel noonu ñun Sénégal lu ñu dugg dañuy roy dàq dañuy dem ba ñun tubaab bi dañuy topp seen sport mais duñu tere lijjanti seen l'essentiel dañuy xëy liggéey bu ngoon nañu stan match mais ñun mais mais dañuy xëy liggéey de ah, dañuy liggéey ba wàcc laajal sénégalais de la diaspora yi ndax am nañ sañ-sañ yeewu suba ba ngoon di wax ci football te bañ a xëy bañ a gont fii da ngay gis ku xëy tëj palaasam ndax football dama ni ce n'est pas euh, euh, un reproche c'est bien le sport mais que le sport la musique bépp divertissement bu la war a mën a déconnecter de ton avenir dama ni loolu nit war na ko mën a xoolaat limiter ko parce que man nag tey Pape Ngagne am na lu ma soxal <laughs> parce que li ma soxal mooy dama am président la république boo xam ne man de dama bëggoon tàccu parce que tey dafa taxaw taxawaay bu am solo ci sommet bee mu dem Égypte mm-hmm. wax fa wax yu dëgër yu am solo mm-hmm. parce que man dama dama musuma gis sax un président aussi courageux Macky Sall dafa yéex a dafa yàgg dafa gëj a courage we noonu jàkkaarloog ah, ah, ñeneen ñi ne leen il faut que ngeen xoolaat seen doxalin ci mbiru climat bi parce que ñun africains yi dañoo sonn ñun dañuy sax leb dañoo sax pauvre wax yu am solo yoo xam ne waroon nañ ko mën a tegal Sénégalais ñu dégg ko parce que boo toogee ba ne Séné ah, doon Sénégalais yi dañoo pauvre ba tax moo tax ñu immigré ndax bu ngeen tëjee seen Eldorado yi dëkk bi développé wul il faut nit ñi dañuy immigré loolu aveu de de taille la mais bu demee ba ne euh, européens yi ak ak ne ci adduna bi ne leen ñun duñu nangu bañ a développé wu par tout les moyens dinañ développé wu bu ngeen fayee li ngeen war a fay adduna euh, bi muy plus de cent millions de dollars xaw ma par par par an xaw par mois du ngeen ko fayee dinañ dinañ développé bu ngeen ko fayul dinañ développé wu parce que foofu la ñu toll il faut que chacun jël responsabilité man j'applaudis parce que man je suis pour quelqu'un bu nga xam ne environnement daf ma amal solo parce que pour man citoyenneté déjà mooy loolu mooy xalaat ñi fi war a ñëw ëllëg du xalaat sa bopp kese mais su ma gisee loolu gis tey Sénégal foo romb muy ay immeuble Papa Ngagne ngir yàlla wala sóori yéen Sénégal yéen journalistes yi mais defal lañu des enquêtes ñun géeju mamel bi mënatuñ koo gis mamel laa dëkk ay immeuble lañ tabax foofu tey boo defee lii yëpp ay photo la yoo xam ne bu ne mën naa la koo jox nga xool le pays en gratte-ciel foo romb ay immeuble foo romb ay immeuble que du béton loolu yëpp c'est la pollution ndax ñii fan la ñuy verser ci géej gii lañuy ñuy ndax ay égout la ñu am égout yi ñu nar a verser ci ci géej gi lan la ñuy indil suba ay inondation lan la ñuy indi réchauffement climatique nga ne ma mën naa topp football wala leneen ba duma xool lii lii samay doom ëllëg ñoom ñoo ciy subir c'est du béton c'est pas les maisons kenn moo ko moom kan moo ko moomul c'est pas ça qui est important ce qui est important mooy on a un président qui a le courage de voir le monde et de leur dire il faut que les choses changent il faut qu'on sauve la planète ñu ne on va applaudir mais commence toi par sauver la planète commence par sauver Dakar parce que mënoo nekk un président de la République Sénégal metti fu mu metti kenn amul xaalis góorgóorlu yi mais foo romb gis ay gis ay gis ay ay ay ay bâtiment gis ay immeuble le président ne s'arrêtera jamais Macky Sall di signé ay autorisation nit ñu di continuer di tabax jusqu'à quand benn hivernage moo ko fi dese mooy bii di ñëw bii passé gis ne lu nit ñi dund il faut que les gens sachent s'arrêter il faut que sénégalais taxaw ci l'essentiel l'essentiel rek du politique kese ndax lii ma la wax environnement la du politique les gens se sont battus def benn collectif au niveau de Mamel mhm. pour empêcher euh, ni ñu def ni ñu occuper euh, le phare phare bi moo fi des mhm. fii ci Dakar yëpp phare bi moo ñu fi desee mhm. loo xamante ne poumon la bu nit ñi mën a noyyi on n'a plus accès à la mer mhm. on a mis des usines de dessalement sur la plage on a bloqué l'accès l'accès est devenu privatif lan la ñuy noyyee il faut que loolu ki nekk Pikine jàpp ne sama yoon nekkul ci géej de parce que man pikin laa soxla na xam ne géej gi brise boobu di ñëw dafa am njeexintal parce que air bi ñuy nooyu ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn mënul nat tibb sa potu air dencal sa moroom donc ñëpp gis nañu li am euh, embouteillage yi polition bi nekk ci réew mi léegi loolu duñ ci wax dañuy topp daal bu ñu invité nañ wax ci politique nañ wax ci fait divers mais nañu bàyyi président mag Sall mu continuer di doxal di di di massacrer l'avenir et di massacrer l'héritage des génération qui vont venir parce que nag on dirait que benn boulimie ak benn précipitation lañ nekk di def boo xamante ne comme des gens qui savent qu'ils vont partir mais il faut qu'on contrôle aussi li ñu fi nar a bàyyi. d'accord bu ñu nangu rek Pape Ngagne ngeen topp leen ba ñu dem. après ñu doog a taxaw def l'inventaire fekk béy wees na mbu. merci beaucoup béy wees na. merci beaucoup ci message boobu c'est important donc euh, fallait ma déglu la parce que xam naa ni aussi lu la tenir à cœur. lu ma tenir à cœur la loolu moom mën nañ ko mën nañ ko nangu. Mhm. parce que ku la dégg ni ngay waxee xam ni lu la ñor la te loolu itam moo la gën a soxal sax que politique bi ngay wax muy environnement bi euh, donc loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax ma ci profité nag di la remercier. Mhm. di wax ni vraiment kontaan na ci émission bi <laughs> kontaan naa trop vraiment ci ni nga xam ni noon nga ko noon nga ko abordé ak man. Mm. Euh, ñi koy ñi seetaan itam gis nañu vraiment question yëpp ni nga xam ne noonu nga ci tontoo mm-hmm. ah, ñu koy apprécier bu baax di di di rafetlu itam sa constance ak sa courage mm-hmm. Maïmouna mm-hmm. vraiment loolu moom ah, ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci observateurs yi loolu mën nañ ko apprécier gis nañu sa constance vraiment ci opposition bi taxawaay bu am solo la gis nañu si sa courage gis nañu ni nga mënee sa campagne gis nañ vraiment taxawaay bi nga taxaw daanaka jigéen bu mën góor macha allah loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waaw bi nag di ko Euh, sargalee jigéen ñëpp parce que bare na ñun jigéen ñi dañu naan bu ñu nekkee ci parti politique pour mobiliser la ak topp ci ginnaaw leader yi di leen tàccul loolu moo waral xëy na suñu taxawaay bi ñu taxaw pour wane ni hmm. jigéen war naa mën a am ay responsabilité am ay idée te toppul ci ginnaaw benn góor lu du caaginu dañ leen xeeb wala dañ leen yëgul mais c'est juste parce que dañu am ay doom ñu nekk ay jigéen ñu war leen a mën a jox benn tracé benn yoon bu ñu war a mën a jaar di rafetlu invitation bi et puis itam di rafetlu sa liggéey dama ko wax sànq suñu jeunes yu bare yu nekk force citoyenne ci groupe bi ma ne leen il faut ngeen indulgent ak Pape Ngagne parce que je vois que souvent da ngeen koy reprocher nu mu mel euh, peut-être façon de faire mais man j'aime j'adore le style Pape Ngagne bokk nga ci journaliste pas dama fi toog mais aussi nit ki da koy seede li mu nekk bokk nga ci journaliste yi ma gën a respecté gën leen apprécier parce que xam nga lu tax Euh, soo invité nit ki da koy relancé c'est pas pour wàññee ko wala pour toroxal ko ñenn mën nañ ko gisee noonu mais je trouve que kuy ñëw télé war ngaa mën a outillé wu muy ministre bi xooloo ki nekk ci pouvoir xooloo ku nekk ci opposition bi koo invité da ngay dem ak moom ba sës mais aussi na la nit ñi nangul sa façon de faire sa façon de faire mooy j'invite les gens pour ñu wax ak sénégalais mais man maa fi nekkal sénégalais yi nga xam ne ànduñu ak moom pour di ko poser ay questions contradictoires mm-hmm. donc ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci plateforme yi di commenter nañ ko jàppee noonu nañu ko mm-hmm. sa ta di gis baax a baax mm-hmm. di itam jàpp ne ni ngay liggéeyee bu ko yeneen journalistes yëpp doon liggéeyee de façon professionnelle xëy na du ñu leen ŋàññi niñ leen di ŋàññee di naqarlu nag vraiment yenn excès yi nga xam ne mu ngi am sa yenn confrères yi nga xam di wax ne bu ñu demee ba ñun ñi nga xam ne on a besoin de la presse pour parler on a besoin de la presse pour sénégalais yi euh, ràññee ñu ak pour ñu ubbil ñu seen bunt parce que léegi ñu ngi am sañ-sañu dugg ci biir kër yi di wax ak nit ñi mais c'est parce que nit ñi dañoo dégg suñu ay discours ci média yi donc di invité sénégalais yi ñu bañ a euh, egg ci yenn extrémité yi parce que média kenn du ko buddee parce que média c'est un service public ñoom ñoo ko moom boo amee loo ci gis neexu la dangay dem jusqu'au mm-hmm. bout combattre pour que ça mm-hmm. change moom mm-hmm. va pas dire damay buddee tel organe de presse damay bàyyi tel organe de presse parce que doo bàyyiloo moom doo bàyyi moom li nga moom da ngay xeex pour mu mel ni nga ko bëgg mais doo ci tegg sa loxo donc nañ ko jàppee noonu ñu jàpp ni du guerre jàpp ni ku nekk sa rôle nga nekk man su ma ñëwee du indiscipline parce que meluma noonu mais soo ma posé il faut wax bi dëgër parce que tontu bi dafay ànd ak laaj bi. Mhm. mais ñun ñëpp on est des citoyens bu lii weesoo dañuy ànd nekk ci jàmm donc maa ngi lay vraiment remercier ci opportunité bi nga ñu defal. di itam remercier vraiment sénégalais yëpp. Mhm. dans ensemble ci. safoo biñ ñu safoo ak taxawaay bi nga xamante ne suñu jëmm yu xeeb yi ne nit ñi lépp luñ leen woon ñu ngi ci dañuy bàyyi lépp nekk ci ak ak ñun di wax rek ne am na ñoo xam ne ñu ngi xaar force citoyenne mais nañu xam ne mouvement bu indépendant bokkul ak parti politique boo xam ne ñu ko jiite dafa nañoo nekkoon ci nguur yor ay moyens ñun on va petit à petit avec nos moyens du mm-hmm. bord mm-hmm. xëy na yoon bi dina yàgg mais l' essentiel moo ñu reste dans la constance incha allah jusqu'à arriver à notre objectif. merci là. beaucoup Maïmouna euh, Boussouf ñu ngi koy remercier bu baax moom moo jiitee euh, mouvement force citoyenne euh, force citoyenne nag bokk ci coalition bii di Yewwi Askan Wi moom lañ doon dalal tey ci seen émission faramfàcce ma ci gërëm bu baax itam suma naataango Chérif Dia moom moom ma jàppale ci émission bi ci coordination bi Chérif voilà. Chérif maa ngi koy remercier bu baax di gërëm Vieux Diouf ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci régie bi mbokk yi ñu leen di jox rendez-vous allah ci beneen àllarba bu ci yàlla